ba tax ñu noot askan yi ba pare nag askan yi bu ñu génnee di ñaxtu ñu jël alkaati yi boole ko askan wi ñu gazé leen nii ñu dóor leen ba looloo tax tey ñu jàpp ni kat kii di Guy Marius Sagna moom dafa nekk koo xam dafa fës ci li nga xamante ni moom la Macron jàngat ne sentiment anti-français la tama la wax ne ñun amuñu sentiment anti-français parce que suñu jafe-jafe jëmul ñun ak waa euh, ña dëkk France askanu France comme ni ma ko waxee ña di noot ñoo ñuy noot ñi nga xamante ni moom moo tax ñu naan France dégage mooy la France institutionnelle mooy état français nga xam ne c'est impérialiste ak ñi nga xamante mooy multinationale française yi ak euh, Sénégal wax que ni dina daw fii ak avril dañ koy xaarandi waaye ci biir loolu seen euh, benn naataango di euh, Guy Marius Sagna nekk patriote nekk koo xam ni day euh, xeex ngir hausse di prix de l'électricité ñu jàpp ko est-ce que jàpp leen ni ndënkaañ googu ñu ko def ci prison bi jàpp leen ni loxo France daf ci nekk. mais loolu wax nañ ko yaakaar naa am nañ fi ab janoo ak taskatu xibaar yi ñun waa FRAPP wax nañ ko te loolu yàgg nañ kaa wax ndaxte ci fàttali Guy Marius Sagna biiru njëkk bi yoon ñu koy teg loxo. yaakaar naa ne euh, li ci jiitu tey jii le 24 bii yi di ñëw kii di benn Talib soow di sama camarade nekk FRAPP France Dégage tam ne coordonnateur non lank war na taxawaat ak Kémi Seba ci wàllu billet kayitu junni boobu nga xamante ni moom la ñu taaloon fële ne ci place de l'Obélisque te bis boobu ñu ñëpp ñu ngi taxaw ndaxte kat di taxoon ñu def loolu mooy symboliquement wane ni CFA bi ni muy doxee ni dañ ko war a taal defar tëgg suñu xaalis bopp pour mën a moom suñu bopp waaye li tax Macky Sall Euh, dàq Kémi Seba génnee ko euh, réew mi te boobu ñun ñu dem manifester ci aéroport bañ jàpp ñu tëj ñu fële ne ci gendarmerie aéroport ne Kémi du génn réew parce que doomu Afrique la doomu Afrique kenn du ko dàqee Afrique mm-hmm. loolu loolu waa France ñoo nekkoon ci ginnaaw waa France ñoom ñoo nekkoon ci ginnaaw Côte d'Ivoire bu ñu fa dàqee Kémi Seba waa France ñoo nekk ci ginnaaw Burkina Faso même chose ndaxte li ma la wax rek suñu réew suñu réew yi. li nga xamante ni moom mooy suñu tax ñu tuskare moom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jiite ay xusma ñàpp la ñoo xamante ni. Mhm. Euh, ci waawi France la ñuy dem moom ñu seen bopp ay préfet ay préfet France lañ loolu nag moom moo tax kii di Guy Marius Sagna ah ñoom jàpp nañ ne kat moom moo gën a fës ci xeex bi te kat Guy Marius Sagna ma leen di wax ni mosul jiite frappe. FRAPP coordonnateur am délégué général la ñu am léegi Ousmane Wade la ki ci topp mooy Alioune Badara Mboup Guy Marius Sagna moom mooy secrétaire administratif bi maanaam. bu ñuy bu ñuy bu ñuy réunion bu ñuy ñoo moom moom mooy euh, jël euh, PV yeeg yooyu noonu donc nekkul kilifa ak FRAPP parce que FRAPP amul kilifa parce que FRAPP. bi nga xamante ni moom moo ñu jiite moom mooy idée idée bi moom lan mooy idée anti impérialiste moom moo tax ñu tuddee ko FRAPP front pour une révolution anti impérialiste populaire et panafricaine noonu la euh, kuréel kuréel gi tudd waaye ba ñu ko jàppee lan la ñu waxoon ne kat ah Guy Marius Sagna kat dafa def alerte euh, fausse alerte au terrorisme te lañ ko jàppee woon teguñu ko fenn ndaxte janoog taskatu xabaar ba ñu amaloon ba yëkkati ay kàddu ne France dafay napp nguuru Sénégal maanaam chantage ngir mën a jot suñu pétrole bi kat dafa ñëw ne Macky Sall boo ñu joxul ci pétrole bi dinañ ibbi digg wi dox diggante Sénégal ak maliment maanaam frontière bi rëttalkat yi maanaam terroriste ya nekk Mali ñëw def ay cong fii ci Sénégal te loolu ñun waxuñu ko ki ko wax moom mooy euh, député Khoureychi Niass jàmbur boobu noonu moo dem fële ci ab meeting fële ca Kasnack ca Kaolack wax lii ñu wax nii ginnaaw loolu tamit euh, ministre français bi fi ñëwoon wax ne carrément ne kat Sénégal kat ah terroriste yi ñu ngi fi ñu ngi fi. maanaam ay réseau dormant ñi ngi fii ni bi ñu boolee loolu yëpp ñun li ñu ci jàngat mooy lan kat ah moom dañoo ñëw euh, di jëfandikoo euh, mbirum terrorisme bi ngir di napp Macky Sall ne ko kat bu fekkante ne joxoo ci pétrole bi te looloo tax Total ñun njort nañ ne Total dugg ci suñu suñ suñu pétrole bi tëbb ci lu bëree baree bari pour wax la rek ne loolu moom moo tax ñu jël Macky euh, kii di Guy Marius Sagna denc ko denc ko ci denc boo xamante ni dañoo mujj sax waaye di ñoom ñu ko denc ndaxte wax dëgg yàlla ci mujjantal gi amuñu dara luñ koy toppee bi ñu ko bàyyee itam li tax ñu tegaat ko loxo bi yoon moom mooy li Macron dajale bu yàggul dara boo leen xoolee di ngeen ko gis ay euh, euh, njiitu réewu Afrique Macky Sall ci la bokk di leen wax ne dañoo war a taxaw xeex li nga xamante ni sentiment anti francais la. Mm-hmm. amaana loolu yëpp boo ko boolee moom moo tax ñu jël Guy Marius Sagna denc ko fa leen waaye gis nañ ne ñoom li ñu xamul moom mooy ne ah Guy Marius Sagna donte sax ñoom jàpp nañ moo jiite eh, eh, mbir mi. Euh, Guy Marius Sagna euh, doomu gerte la doomu gerte nag boo ko suulee yaakaar ne tax nga tàqali ko moom dafay jeeb bi dafay sax dafay jeeb bi ba mujj doon ab tool te loolu moom moo leen dal ndaxte foo toll nit ñaa ngi naan frappe France dégage suñu discours sax accroche tey ji tey euh, ay bés bii di ñëw waa frappe Kolda amal nañu ay Euh, yëngu yu am solo. FRAC FRAP Tivaouane ña nga fële ne la di yëngu ci mbirum ICS ak toobeen ak ni ñuy nangoo suufu. suufu suufu jàmbur yi ah FRAP euh, euh, banlieue. FRAP Thiès. donc FRAP mi ngi wër réew mi ndaxte kat wax dëgg yàlla dafa nekkoon loo xamante mi ngi fi woon nit ñi di ko méttilu cri bi jóg FRAP France dégage fédéré ñëpp te wax dëgg yàlla bu yàggul dara dinañ gis ne ah te mel na nguur gi fekk si nañ ñu ci ndaxte tey ñu ngi taxaw naan. Euh, euh, ambassadeur France na dégagé ci suñu ay affaire te ñun waxuñu woon dara lu dul lool France dégage mm-hmm. na génn suñu réew mm-hmm. ci génne loxoom suñu réew du ci yàq nag bu fekkante ne ci njënd ak jaay mën nañ jëflanteeg ñoom nañ jëflanteeg ñoom mais mën nag jëflante nawle boo xamante ni wax dëgg yàlla li koy lal du impérialisme li koy lal du jaay doole li koy lal du lenn lu dul wax dëgg yàlla ñaari réew yoo xam ne ku ci nekk am nga sa càng maanaam sa souveraineté ñu jëflante ni ñu mën a jëflante ak yeneen réew yi parce que àdduna bi toll na foo xamante ni ak voilà ak mondialisation bi yaakaar naa ne meenum réew mënta tëju mm-hmm. meenum réew mënta tëju te protectionnisme am na ay limitam waaye nag nañu jiital ñi nga xamante ni ñoom ñooy lijjant yi nekk ci biir réew mi maanaam PME yi tey ji tey ñu ngi à 64 pour cent de taux de euh, décès des de des des des des PME entreprise Sénégal yi ñu ngi dee bu yàggul dara la CDE dàq. ñaar ñaar téeméeri nit ndax lan ndaxte kat amul ay marché te marché yi ku koy joxe nguur gi kan la jox ay entreprise français entreprise turque ah, tey jii tey Erdogan buy ñëw fii Sénégal buuru Maroc buy ñëw fii Sénégal dañuy ànd ak ay chef d' entreprise ñëw wutal leen ay marché waaw Macky Sall lu tax du def loolu bu leen yóbbuwul sax wutal leen ay marché mu dooleel leen créer ay champion euh, euh, ay champion euh, d' industrie ay champion bu ko defee ñoom ñu defar ay ba mu taxaw. bu ko defee ñu jël ay doomu Sénégal ñu fiy liggéey la fay nekk njureef maanaam ay résultat ci xaalis du dem fenn ci Sénégal lay toog bu ko defee wax dëgg yàlla. réew mi dana gën a ñoŋ ci wàll dundi dundinu askan wi ndaxte ñun encore une fois li ñu gëm moom mooy doomi réew mooy tabax réew. Mm. Euh, ci biir coopération boobu laataa ñuy eggal ci Guy Marius Sagna euh, gis nañ gouvernement bu kanada euh, jox Sénégal cinq cent milliards est-ce que nekkul ni loolu rek dañ koy def ngir courtiser senegal ak pétrole beeg gaz bi xeeñ fi biir réew mi. xam nga réew. amul xarit réew ay intérêt rek la am. Mm. moom moo tax waaye nag ñoom ñoom ñoo doxalee noonu pour sëlam askan bi dañ naan leen ah diwkat ñëw na indil nañu lii mel na yow ku ñuy ñëw di la labat si di la doxaan si mm-hmm. ah ngay mbaraan parce que ku ñëw nga ne ko ay ca parce que ñoom noonu lañ fi nekkee mm-hmm. ku ñëw nga ne ko ay ca moom kay ñun dul sëyal moom ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk ci kër gi moom mooy les nationaux les entreprises nationales mm-hmm. léegi yow boo ñëwee la ngay joxe yow la ngay joxe doo ko wax li ngay wax moom mooy liñ lay jox te boo méngalee liñ lay jox ak la ngay joxe yow ci alalu askan wi ci moomeelu askan wi. Mhm. ci lu jëm ci wàllu euh, ressource askan wi ressource naturelle wala ressource financière wala ressource économique wala ressource halieutique yow doo ko wax euh, nit ñi bu ko defee mu nekk ay ay naxe waaye jamono toll na foo xamante ni. Mhm. fii lu fi desee xam rek dafa yàggul moo tax fii kenn mënatu fee nëbb dara ndaxte wax dëgg yàlla weesu nañ jamono ji nga xamante ni RTS moo fi nekk ak Le Soleil. Mhm. tey yi tey euh, kër yi saabal yi caabal yi bëri na maanaam média yi bëri na muy ci lënd gi internet. muy ci mbaali jokkoo yi di ci euh, réseau sociaux yi. Mm-hmm. ba ci li nga xamante mooy tele yi ak rajo yi ba nga xamante ni wax dëgg yàlla àdduna bi ibbeeku na te kenn mënatul a nax kenn. Mm. ndax jàppoo leen ni euh, sénégalais yi dañ leen a seetaan ci xeex bi ngeen di xeex ci wàllum euh, wàcce wàññi prix électricité bi mm-hmm. ak denc bi nga xam ne denc ko seen mbokk moom di Guy Marius Sagna. déedéet boo xoolee feeñu yi nga xamante ni ñoom la ñuy lootaabe maanaam manifestation yi nga xam moom la ñu organisé. Mm-hmm. sénégalais yi dañuy génn ñëw. waaye nag àdduna noonu la mën a doxe mos doxee mosoo gis réew moo xamante ni dañoo jóg di xeex lépp ñëpp génnandoo ñëw ndaxte am na ñoo xamante ni amaana ñi ngi féete ci wàllu nguur gi ñoom lii di yokk njëgu mbëj gi maanaam électricité bi laal na leen mhm. waaye a ah, ñoom kat am na peut-être bong bong bu ñu leen di jox ñi koy màcc ba yaakaar na ne bu ñu ŋaangee sax ne noo lànk bong bong bi wadd mhm. moom moo tax ñooñu tamit loolu àdduna noonu lay doxee am na ñeneen ñoo xamante ni wax dëgg yàlla réew mi galfaañ maanaam nekk au bord du gouffre ndax yorinu bon moo xam moo tàbbal askan wi ci ndóol woo xamante ni jékk nañ sax ndóol léegi ña ngi ci wàñsewu métti métti maanaam eh, lii di euh, misère ba tax ni kër yi bëri na ñoo xamante ni toggatuñ añ ak reer ak ndékki déedéet dañuy gobar jaa si maanaam togg añ tëbb ci reer ba nga xamante ni borom kër yi ñu ci bëri bu ñu jógee li ñu tal moom mooy wuti lu ñu jox seen njaboot xam nga ñooñu boo leen bëggee woo ci manifester wax dëgg yàlla booy xool li nga xamante ni moom lañ doon def di séddale ay flyers tax na ñu dem wax ak nit ñi mhm. ñu ci bëri dañ naan na ñoom dañoo am kersa ndax li tax ñoom bu ñëw ci manifestation yi ndaxte li ñuy xeex ñoom si boppam daf leen a laal mu yokk njëgu mbëj gi ak yokk njëgu yeneen njëg yi ndaxte bu yàggul lañ ne bu dee nga diwlin bii def ñaar fukki kaabal maanaam vingt libre mhm. litre yokk nañ ko ak simon beeg yu demee noonu waaye ah ñoom kat njaboot moom moo leen jiital ba tax na duñ mën a bàyyi seen di ay ay liggéey di ñëw mhm. loolu itam luñ mën a nangu la mhm. pour wax la lan pour wax la ne la li nga xamante ni moom mooy naqar wi askan wi fësal ci manifester yi ñuy def ànd wane seen ñàkk a euh, ànd ci yokk gi nga xamante ni dañ ko bokk bëgg a yokk njëgu euh, mbëj gi mm-hmm. ah loolu noonu bu ko natt rek ci ña fay toog am na ñu toog seen kër ba ci yow mi ak keneen ñëpp ko yëg neexul kenn ndaxte nit moom wax dëgg yàlla jamono ji metti na méttit boo xamante ni Sénégal metti na te méttit bi yëpp yorin wu bon boo xamante ni ab pàccoo goo xamante moom la ñuy pàccoo ask alalu askan wi tey tëral ay kuréel yu mel ni ay conseil économique social et environnemental et au conseil des collectivités territoriales ay ministre conseiller ay chargé de mission ak yeneen ak yeneen yeneen ak yeneen yoo xamante ni amalul askan wi benn njëriñ waaye kat li am moom mooy toog jàpp Sénégal jàppee ko ñi nga xam ñoom ñoo ànd ak ñoom ci politique ku nekk ñi daggal la ci gâteau bi bu ko defee askan wi moom wax dëgg yàlla continuer ma ci ay baaraamam loolu noonu moom moo tàbbal euh, réew mi ci lii wàñse bi ñu nekkee man misère bi mm-hmm. ak jafe-jafe yi ñu nekk lool nag ñëpp la laal ku mm-hmm. génn ak ku génnul mm-hmm. te ñu génnul tamit ñu ci bëri seen lay kenn mënu koo dàq bu ñu xëyee ki nga xam bu xëyee du bàyyi dara këram mënu ko faa bàyyi di dem ci ay manifestation da ciy ànd li koy wane moom mooy bu ñuy dox di dem dañuy romb nit ñi ñu nekk ci marché yi dañuy bàyyi li ñuy def ñëw taxaw tàccu ah, ñenn ñi di métti lu tax munuñoo ànd ak ñun waaye loolu dañ koy comprendre léegi nag ah kii di nguur gi rawatina Macky Sall moom ci boppam moom moo war a nite te xam ne kat ah nit. nag bu fekkee yow bi nga soxlaa baatam da ngaa génnoon dem doga dagaan ko. mu wax la nga dégg. moom itam bu amee lu ko metti ci ni ngay doxalee. war nga koo mën may nopp. te boo ko mayee nopp après déglu ko mu indi ay njaañ see maanaam ay argument wax na lii ak lii ak lii kat moom moo tax te loolu ñun def nañ ko muy mémorandum bi nga xam ne siiwal nañ ko. Euh, euh, démb. tënk ci muy ak ngara ngara ab ngara maanaam document boo xam ci la ñu tënk. li nga xamante mooy lay yi nga xam ñun moom la teg. jëm ci layal ni kat Senelec dañuy sàcc askan wi te ni nga ko jaaree ci ay tont maanaam facture yoo xamante ni. Mhm. dañ koo yokk tey itam wax dëgg yàlla kii di conseil de régulation du secteur de l'énergie dafa complot ak Senelec wax dëgg yàlla euh, ba nga xamante ni moom mi nga xam dafa waroon taxawal askan wi mu ànd ak Senelec nag nangu yokk gi nii yokk gi tegawul fenn loolu lépp wane ni ko na Macky Sall dégg loolu delloo si xelam mm-hmm. wax dëgg yàlla bu fekkante ne dogal bi ci moom la jógee parce que ñun tamit dañu njort ni kat ñun suñu réew ñu comme ni ma ko moom ñu seen bopp les ñu ngi fii nii ay banque mondiale ay ah for naa ci weeru euh, for nañ ci weeru weewu béy sax ne waa banque mondiale ci boppam ñoo ko ga boobu yokk ñoo ko imposé ndaxte kat dafa am xaalis bu ñu ko war a lebal ne ko pour xaalis boobu dugg faawu nga yokk njëgu mbëj gi te loolu du fi lu bees muy ajustement structurel yoo xamante ni maa ngi fàttali ko Abdou Diouf ay jamonoom bi ñu génnee élection 88 yi dëkk bi tàq fu nekk Abdou Diouf ci boppam bi ñu dawalee tuuti moom moo wax en 2005 bi mu jógee ci nguur gi benn émission bu mu sekk ak Philippe Santani fële ci euh, euh, RFI tam tudd Livre d'or mhm. après 1988 kuréel yooyu di banque mondiale ak FMI ak yenn réew yi am doole yi ñoom ñoo ñëw ne ko kat yow kat euh, li nga xamante ni moom lañ la digaloon nga def ko mu yokk njëg yi da nga cee dem ba ëppal wàññiwaatal njëg yi pour war na ne kat ñun moom ñu suñu bopp ni nga xam moom la ñu doxalee. Mm-hmm. suñu njëg yeeg lépp lépp lépp loo xamante ni lu ñuy gala loxo France génn ci loxo FMI génn ci loxo banque mondiale génn ci te wax dëgg yàlla ba ñuy ñëw di dagaan suñu ay kàddu du loolu la ñu waxoon. Euh, toujours ci euh, combat bi ngeen di mëne yéen waa fra France dégage euh, ndax tey jii démb dégg nañ leen ngeen annoncé benn plainte au cours CEDEAO mm-hmm. tey jii mën nga ñu wax fan ngeen toll ci boobu les plaintes waaw plainte bi ñu ngi ci suñu avocat ñu ngi ciy liggéey mm-hmm. bu yembee rek ñoom wax dëgg yàlla danañ dem ba cour de la CEDEAO mm-hmm. déposé foofu noonu plante bi ndaxte wax dëgg yàlla ah, ñun dañuy yoonal xeex bi dañuy yoonal waaye itam yoonal moom da nga koy sëkk koo xamante ni li muy def ci yoon la ko teg. Mhm. bu paasee foofu noonu tamit euh, bu jeexee rek jeex na lu mu laaj lu mu jar dinañ ko def ngir Guy Marius Sagna génn fee nekk ndax tey wax dëgg yàlla tey jii tey euh, lii di càmmug Sénégal état bi war naa rus. Mhm. ndaxte li Guy Marius Sagna doon xeex li nga xam waa FRAPP France Dégage moom la ñuy xeex li nga xam moom la activiste yi di xeex mooy fexe ba nga xamante ni ah dinañ wan ñi nga xamante ku mel ne Emmanuel Macron ne mhm. kat Macky Sall. lii nga ko bëgg a defloo mu bañ ko def ñun ñoo ci ànd ak moom. moom Macky Sall dafa waroon wéeru ci euh, kuréel yu mel ne FRAPP France Dégage pour wax ne sama askankat lii la ñu wax waaye warul ànd ak ñi nga xamante ni ay way mbeefeer lañ maanaam ay colonisateur lañ ñi nga xamante ni li leen soxal du ñun suñu réew du suñu dund li leen soxal mooy seen dundum réew ak du seet sax seen dundum réew mais ñoom seen di ay lobby lobby fraternité yeeg lobby euh, nu mu tuddati waaye euh, d'affaires yeeg. Mm-hmm. lobby politique yi ngir ñoom ñuy gën di. dund dund gu ñoŋ dund gu neex di gu ndaataata ndaataata lax askan yi ñoom nekk ci wàñse loolu noonu Macky Sall moom moo ko war a bañal boppam te moo tax mu war a xam ne kat kuréel yu mel ne FRAPP France dégage daf leen war a jàppee ay partenaires ndaxte wax dëgg yàlla ay ndaw yu mel nii nga xam seen réew soxal na leen. Mhm. seen continent soxal soxal na leen. Mhm. du ñoo xamante dañ leen war a faagaagal comme ni ñu bëgg a faagaagalee Guy Marius Sagna naka lañ ko defee woon Omar Blondin Diop 1973. rey ko mhm. fii ci prison bi ci Gorée. te xeex bi ñuy xeex la doon xeex jamonoy Senghor loolu moo tax ma ne li fi jóge li fi nekkoon jóge wu fa ba léegi. loolu moom moo tax ma ne kat loolu lu ñuy ñaawlu la te kat dinañ ci xar suñu tànk tubéy lu leen jaral dinañ ko jaral ndaxte kat ñun dañoo bëgg Sénégal dañoo bëgg Afrique. Mm-hmm.